boo amoon juróom benni sero te amoo benn chiffre amagoo 3 millions soo amee juróom-ñeenti zéro te amagoo benn chiffre amagoo 1 milliard soo amee benn zéro te amagoo chiffre it amagoo 10 ñu ne nag mboolem jëf yu baax yi ci àdduna yépp ay sero la raqama bi muy chiffre bi nga xam ne mooy confirmer sero bi mooy jikko ju baax loolu moo waral kon foofu ngay dem nag lépp lu mën a doon bu ca yar amut zéro la hmm. jëf ja zéro la nañ nañ noté hmm. su ko defee sëñ Saliou daan wax ne yar bokk na ci nga man ko mooy nga tàmbalee ki sa bopp Ahmad Shawqi fabda bi nafsika la wax mm-hmm. wanhaha an ghayyiha mm-hmm. tàmbalee ci sa bopp nga fexe ba jub nit ki jub loolu sonn ci njub nit nit ki jubadi nag bu waree mën naa jub bu taayeelee mën naa jubadi nga xam ne dëgg ba la nga xam ne borom daara ji moom tomb bi njëkk mooy mooy fokk dafa war a yaru exact waaw ah. ba pare waaw day yaru ba pare ah. loolu nag ci laa bëgg a bu baax moo tax sëriñ bi def ne nit day fexe ba jub baax moo tax dañ ne sax borom xam bi sax dañ ne jàngal junniy nit menn masala mel nenn moo ko gën a yomb mm-hmm. soo bëggoon jàngale tey benn matière mat ci université nga bëgg ko jàngal même pour toute personne ñi lee romb ñëpp nga bëgg ñu dégg masala bi defe naa doo am 10 pour cent mais sa comportement bu jekk bu rafet bu jub nag koo romb mu man ko. effectivement kon moo tax ñu ne nit na mel ni mu war a mel. ba pare boo melee ni nga mel a mel ku la gis day mel ni nga mel. Mm-hmm. moo tax ñu ne nga jàngale benn matière mat ci marché ba gën a rëy. keroog muy sotti boo defee test bi doo am 5 pour cent waaye melo wu rafet na boo ko melee waxee ni nga war a waxee toogee ni nga war a toogee hmm. jigéen jay jaay caaf soxna sa la romb gone gay yalwaan ñëpp a mën a mel teew moo tax ñu ne boo joxee leçon na nga mel ne leçon bi waaw jëmmi a jëmmi borom dara loolu moom lu am am solo la insha ko defee nag sëñ Sall daan wax naan daan ku borom bil mu rab bii na la hmm. sëñ Sall ginnaaw bu jëlee lim am ci yar daf daan am ay téere yu ko daan jëlee bitim réew ci tarbiya rek hmm. ndax intéressé gu ko tarbiya intéressé dafa ci daan liir ku ne fi ne bu doon wax ak ci tarbiya danaan la diw sàngam ci ak sàngam andi la date bi 1900 nangam ji danaan la mooy tolloog nangam yoroon na daara ju mel nangam def na nangam. parce que parce que nit ñi seen message yi seen kii dafa wute. ñii dañoo jikkoy xar ñii yor jikkoy gaynde. dana ñëw ci axlaaq xam leen waaw dana ñëw ci axlaaq mm-hmm. su ko defee nee na nag jokkoo googu mu daan jokkoo yarkat yi daan am ay téere daan ko liir te lu mu ci liir da koy tatbiix da koy appliquer directement loolu moo waral nag moom muy ab yarkat bopp 33 la tàmbalee yar nañ delluwaat ci yar sëñ Saliou Mbacke bi muy tàmbalee yar moo daan dem doon jëwri ni tool ba doomi sëñ Touba ju nekk ci tool di bay nit ñëpp di dooñ dooñ mooy nga daggal leen ay parti ci tool bi suñ noppee muñ ñëw ci kër gi bind alluwa yi ci loxol boppam bu tedd ba ci ñuy war a jàng alxuraan su noppee joxe ñu bari sëñ Saliou leen jàngal tasawur si xaar jawhar nafis ba ca daana wax naan sax man eh, nee na eh, eh, mawaahibul quddus boppam a ko ci doy mm-hmm. waaw waaw ndax ndax ndax ilmu bi mu doon da ko da ko da ko ko kap bu la ko daan jàngal da nga koy gaaw a dégg mm-hmm. mu ne mawaahibul quddus kenn doyu ma ci kuddus sama bopp mm-hmm. kon da daan toog di jàngale comme ab jàngalekat da daan ànd ak ñi ca tool ya comme jëwrin yi da tool su dikkee da daan jàngale alxuraan comme ab sëñ daara loolu nag mooy waral nag kon yi ñu bëgg a wax yëpp bu dajee waatee moom am na fu mu tey foofu Matar du mën a dagg ndax xamaa li ñu bëgg a wax sax kenn du ko mën a tënkisee. <laughs> parce que 20 minutes dafa gàtt waaye foofu. ñun ñii def émission mën nañ see jàngee lu am solo. ndax koo xam dañ la wax ne 33. waaw ba tàmbalee jàngale. waaw ba nim làqoo. waaw noppiluwul. foofu borom daara ji nga xam ne dafa mel ni man. ubbi daara maam amagul sax ñaar fukki at. daal bëgg a pare si daara ji nekk si yeneen mbir xamutu daara ji lu si nekk xamul luy dugg xamul luy génn kooku kon war naa mën a jàpp ni kon doo ko ubbi rek pare si de vapt mais da koo war a tàmbali min al bidaaya ila nihaaya de vapt nga xam daanaka ñoom du ñu wàcc dañ ciy nekk ba di tëdd genn wet ba duñ mën a toog waaye dañuy nekk ci liggéey bi dafa daan wax naan ñii di jàngale yéen a wuutu ci njàngale mi bis bu ngeen noppee jàngale ma bàyyi lépp ñëw di jàngale kon moom ndekete daa jàngale ba yàgg mu am ñu ko ca aw mm-hmm. mu nekk ci yeneen activité yoo xam ne nag ca wetu jàngale ma nee na bis bu ngeen noppee jàngale ma ñëw jàngale mm-hmm. awalan Eh, xam naa da nga ma yóbbu ci mubasharatan mu bàyyi li ma doon orienté wu. fekk si wàll tuuti. Mhm. bu la masaan soxla yow bii jàngale. def naa ne boo demee nga ne sëñ Maxtaar du sàllalu kenn Mbàkke. ne ko fii ba muy noppi ci sa loxoom di féex. Mhm. bu mu ñëw waaye sa loxoom féexee soxla naa ko. Ah, doomi sëñ Touba moom kër gi moom dong yi moom la yow. woo la soxla la 10 heures muñ ba 13 heures. ixtiraam bi. xoolal ma lool te boo dikkee lim lañ boo ko jubee lim lañ njëkk a jox ma ah mbaa sa loxo féex na. Mm-hmm. nga ne waaw mu daal dugg yow ci domaine jàngale bi nangam ku ko defoon nag nangam fu mu toll gone yi fu ñu def nuñ def lu ci gën yow yaay jël yow say décision yow jàngalekat bi. Mm-hmm. lum la ci orienté nag ne la teeñoo def nangam boo ko xeebee ba ba ko fa buñ deful loolu du baax. effectivement kon moom jàngalekat la boo xam ne ci daana waxit ne tarbiya taqoo daan ne boo ngeen gisee may jaabante ci daara yi di ma ko ñëw nee na koo mënta gis mënoo koo defar. Mm-hmm. taqoo nee na koo mënta gis. mënoo ko defal. ñi xam daara yëpp xawoon nañ programme yi sëñ bi dañ naan tey sëñ bi dana fi ñëw te dara te dara du ko dindi téléphone amul waaye xam nañ ne lim waxtu mu daan ñëw dana ñëw bu dikkee itam la muy njëkk def mooy bu dee képp ca ba mu koy man jàngalekat yi bu ne dana ñëw taxaw ci sawet xool daara ji bu gisee ñetti dongo ci bitti laaj dongo yi dañoo tari wala dañoo daw wala loolu yóbbu fañ nekk kon moom israaf bi muy supervision bi ci loxoom la nekk. Mhm. donte mi ngi xool. ki mokkal ak ki taree ndax ku tari ku ne da ngay dem ci sëñ ba hmm. léegi nga ñëw ne foo toll nga wax mën a tari nga tari diggante sàngam mën a bàyyil demal tari diggante sàngam kon moom musta dañ di jàngale am na lu xorom lu ci am 86 7 dafa ñëw di toog ci njoowaan gi gone yi wër ko mu ne yow diw foo mu ne ko barab sàngam mu ne diw foo ba ca ka ca gën a suufe àlloo mu ne ko foo mu ne ko sëri sa sëri sëñ bi ne ko na jàng min hmm. xam nga kooku bàyyiwul dara. Ah. sarri la ko wax mu ne ko xanaa kon da ngaa jàng. min démb maa min sarri. mënut a boole min sarri. waaw ne ko ah. sarri laa toll sëñ bi ne ko da ngaa jàng kon démb min. Mhm. nga nga xam ni foofu réalisateur sax mi ngi temps bi jeex na. waaye nag tey mbokk yi ñu xam ne dañ doon ubbi. Ah. pour bëgg leen émission bu bees. boo xam ne yaru ak yarale. dafay concerné képp comme daa nekk si daara rawatina daara sax moo ko gën a moo ko tax jóg. Mhm. jàngalekat bi ak ak ak donga bi. Mhm. waaye Cheikh Makhtar li nga jot a développé mën nañ sa si déggee lu bëree bëri. Mhm. ndeke jàngalekat bi. il faut que yërmande dana am si moom. danañ ci ñëw. il faut que cofeel gi. danañ ci ñëw mbokk mi sax mi ngi naan ñu waxtu yi liñ si amoon jeex na da nga ci déggee itam ak way. ndax ñëpp bëgg a dem si kaw. waaye nag way moo jafe. li waay li waaj naan li kullin ila sha'wi al ula harakat. walakin qalilun min ar-rijal ñëpp bëgg a dem si kaw waaye ñi way dañoo bëriwul kon yooyu yëpp mënees na ko dégg ne jëmm la joo xam ni. 33 mm-hmm. mm-hmm. ba ni mu génnee àddina. 27 am bàyyiwul mm-hmm. euh, njàngale. bi mu amee si ñu ko si wuuti itam lam nekkaat moog daara ji ñoo lëkkaloo. ci wet ga rek. loolu mën na say jànge mbir moo xam ne ndeke daara ku ko sampu. wërta daanu. ok nu mu mën a demee rek wërta daanu war nay mën a dem di dem dem ba nga teg ko si ay loxo ba mu nekk liggéey boo xam dafay am. istimraariya. mos naa koo dégg itam te xam naa foofu lañuy ñuy jeexale ci diggante dong ku ne xam na dongo buy doog a dugg si daara. Mm. xel bi ni muy mel. waaw ni muy ñagasee ni muy bañ liggéey bi. Mm-hmm. ak yow mi xam ne yaa ko war a dalal. Mm-hmm. yow mi ko war a dalal moom dafa mel ni boo amul insiraahu sadri. maanaam mm-hmm. dënn bu ubbeeku. Mm. xale bi lim bëgg du ko am. te itam lu bare bare si ndog mën naa xaj na si diggante bi ndax ali xale boobu daa tàmbalee. Mm. baasin mim. nga fas yéene tàmbulee dóor. feregut ji ngay dóor. wàccagul ngay dóor mm. mokkalagul ngay dóor kooku mm. yaakaar naa bu leen yàlla defalu tawfeex balaa xale bi mokk dana am lu xew ci diggante bi mm. la waaye nag léegi yërmande jooju nag ak ñeewantu goo xam ne moom la daa dajale xale bi daana wax ne mastaw tanat anwaaru si jalaali xuluba mel ne jàngale fi muy méttee nga xam ne dara desul lu dul dóor nee na foofu day mel ni boo muñee diggante bi tuuti foofu la leeru alxuraan gi duggee ci jàngalekat jërëjëf sëñ Mbàkke xam naa foofu sax fa koy wàccee sa kaw du ñëw kii ndax xam naa dañuy may cinq minutes moom ndax da ngaa bu am solo nga yar nit ki mu rus la moo gën nga yar nit ki mu ragal la nee nga yar nit ki mu rus la moo gën nga yar nit ki mu ragal la ndax nee na ki la rus bu nekkoon soow dana rus nga dégg la mu def mbaa lam wax su la ragalee nag boo dëddee mu def lu raw lam daan def ndax danaan sëñ ba nekku fa awalan maa sha daana waxit ne jàng jihaad la ku dóor da daw te ku daw ci jihaad bàkkaar bu rëy nga am. minal kabaayir waaw kabaayiru sayyiaat bokk na ca alfiraar. minal safaaf mu ne nag jàng jihaad la boo dóoree da ngaa daw. Hmm? loolu daan nañu ko dëkkal ci su nopp yi. waaw loolu kay moom. waaw kay jàng la kon booy jihaad da ngaa war a muñ. muñ gi nga war a muñ ci dëgg bëgg dóor gone gi te dóoroo ko. muy muñ gi nga taxaw jaasi yi di dal ci sa kaw ngay dóor jaasi. xulóoba ahli sabri <laughs> kon loolu daana ko tënk moo tax it dana ñëw ci résultat am ak yéppam bi ilmika tahdi laa bi darbin muridaku wa satwati maraamuka xayru rawmi yaa sayxu saalixu maqaaluka dikrun kulla yawmin wa sa xam bi nga am ci ngay jubale mm-hmm. mais yow doo ab dóorekat mm-hmm. buy torturer mm-hmm. sa lewet gi nga am ci ngay miisale miisal nga fàtte loolu xale bi yaayam ak baayam ak dëkk ba mu nekkoon waaye doo attaqué ka ñaasantee ko dóorante bi di xiyaali bi la bi laa bukkaay saa yu message ah, sallallahu alayhi wa sallam moom daa waxul doo xam sallallahu sëñ bi da nee na bii di xiyaali bi laa bukkaay na njuba na njaboot gi jub te buñ jooy te buñ leen te buñ jooy ci la yeyoo rabbayta jiilan wa kam raqayta min nuxubin mhm. yahdi bi ka allahu man qad shaa wa ahdaaka maa sha allah sëriñ Saal mi ngi tàmbale ci fukki gone ak ñaar mujj ci fukki junni ak ñaar yoo xam ne ñu ngi en cours bokkut ak ña wàcc mhm. bu ñu duggeetee ci yeneen tomb yi daañu ñëw ak yéen ci yaatal. waaye daal daana wax naan moom yare mooy jege ak yërëm dañ ko daan dénk gaal yi gaal yi gaal yooyu ñuy kees keesi miskit yi. am na ko xale bi ko mësoon a dénk ak gaal sëñ bi ci këram gu manqué xale bi ñëw ne ko damaa wàññi sama miskit mu manqué. Mhm. sëñ bi ne ko ah te nga koo wàññaat mu wàññaat ko ne ko manqué ne mu ne ko ñaataa ci manqué mu ne ko ñetti kees <laughs> sëñ bi ne ko loo ci yaakaar kon man de xanaa jëluma ko mu ne ko ah boo ki ko fi jëlee ci sa ron lal gi la ko jëlee nga xam ne sëñ bi daa di profité ba mu amee miskit daa daal di ba mu ko daataan sa di séddale nag mu tolluwaat ci ak ñëpp xoola ma ah. la lépp si lépp lépp si lépp ah. ko daw ca daara ji gi sëñ bi ne ko looy def nii mu ne ko damaa daw xam mas ngaa gis dawee ca daara ñëw ci kër sëriñ bi toog ci sëriñ bi hmm. kon lam daw moom du sëñ bi ku daw kay da nga daan dem si kër baay xanaa hmm. moom dafa daw ñëw ci kër sëñ bi sëñ bi ne ko looy wut fi mu ne ko damaa daw hmm. sëñ bi daal di woo koy jàngal ba mu ñëw mu ne ko kii de na nga xam ne buggut a génn sama kër gi waxatu ci yaayam dara waxatu ci baayam dara sama jëmm ji moo ko ñor hmm. moo tax ba mu dawee tam ci sama kër gi la ñëwaat te xam ne ne fii bu fi dikkee du raw ndax danaa ko dellusiwaat ci daara ji kon nag ni ma ko wan man ba bu dawee ñëw ci man. soo ko ko wanee xale bi dootul daw. asalaamaaleykum wa rahmatulah. macha allah Cheikh Makhtar loolu doy na sëkk tey lool mbokk yi nag mooy numéro bi njëkk. Mm-hmm. day wéy incha allah mm-hmm. waaye. li si ñëpp mën a jàng rek ndekk mooy li yonent bi sallallahu alayhi wax ne inna rifqa laa yakunu fi shay'in illa saanahu maanaam def ndànk mm-hmm. lu mu dugg mu rafet mm-hmm. waaye loo ko génne mu ñaaw mm-hmm. tey itam fa bimaa rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta bazan xalisal xalbi lan faddu min hawlik kon mbokk yi lii solo si wax ji dëgg-dëgg rek mooy jëmmi daara ki jàngale ak xale bi ñëw di jàng ñaar yu baax mënuñoo daje ba pare muy muy muy ñagas uh-huh. bu ñagasee rek am na si kenn si ñoom koo xam ne xamul lan mooy uh-huh. lan mooy def am uh-huh. waaye responsabilité bi gën a rëy nag moom mooy ki xam ne moom mooy moo fas yéene jël amaana bu rëy bi ni kaay leen jàng kooku moom na xam ni li li ko tiim dafa bari ah. responsabilité yi koy xaar dafa dafa dafa bari uh-huh. lépp lu ko nar a gàllankoor na uh-huh. def tout pour watandiku ko ah, lu koy may ndam itam uh-huh. mu jëm koo wut te xam ne ndam nag mun a am lu dul ci def ndànk ak yërmande wala xar yassarna alquran li dikri fahal min dakkar alquran jafewut boo ko boo ko joxee nit mu jafe rek xamal ne ci ci maanaam ci yow la nit ñi nag ñetti parti la ñii yàlla may na leen am nañ xel boo leen orienté ñu dem léeg ne xel mi dafa dëgër dëgër koo xam xam ni mënut a mokkal. Mhm. kooku nag am na diggante booy dem ak moom nga orienté ko si. Mhm. ci leneen. Mhm. waaye daal nañ jàpp ni heure boo si nekkee. mu jafe rek xamal ne génn nga cadre bi. waaw dëgg la loolu moom xaayante la boo xam nañ ko yóbbaale. te di ko bàyyi xel. lépp loolu parce que diinu <laughs> diina moom lu jàppandi la lu jàppandi heure bu jafee rek hmm. xoolaatal sa bopp mais wàcc nga hmm. wàcc nga wàcc nga yoon te kon xam na ne saxaar moom bu wàccee ab raay dootul daw dootul daw hmm. kon mbir mi bu jafee ci ci ci ñun la waaye nag bunt yu bari ubbeeku ne incha allah te itam danañ ko gën a yaatal incha allah ci mbooleem wàll yi lii moom muqaddima la rek boo xam dañ ko doon ubbee émission tay bi di sant bu baax baax na Cheikh Makhtar Kébé ci ci ci ci ci ci ni mu ko doon yaatale. ku ne xam na ne vingt minutes. Mhm. nga nga nga développé si. Mhm. loolu day wane ne xam-xam bu bari la. ndax foo dugg buñ la fa génnee rek. di nga mën a jaar faneen jàll. loolu day wane ne xam-xam mi ngi fi. ndax dund na ko. ku ñu xam la ji kipaaru Serigne Saliou. Mhm. bokk noonu nañ nekk fa. xam ko mu nekkoon koo xam ne yaatu na lool ab liggéeyam. di nag ñu ngi siy sant bu baax nag groupe yaatal mbindu alxuraan. ànd ko compagnie Serigne Seck Sénégal. dara du yitteem lu dul mhm. fexe ba alxuraan mhm. ñoŋ mhm. ñooñ alxuraan ñoŋ ñu koy joxe am xol bu tey ñu koy jàng itam mën a am xol bu dal mën a tabax ay ay nit li Ahmed Shawqi wax rek wa allamana bina al majdi hatta axasna imrata al ardi ixtisaaba wa ma naylul matalib bi tamanni walakin tu xasu dunia xilaaba yoon tamit moo ñu tabax wax nañu ni ñu jaar ba jàlle day wax ne benn baydu Sëriñ Tuubaa boobu rek doy na waaw njiit laay ci bépp jàngalekat biir di ayaal yi bi lay bukaay fokk nit ki dënnam ubbeeku dënn bi boo xatee moom dara mënatuta euh, fajo kon foofu la ñuy yem di siyaar ñëpp di leen jaajëfal di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bismillahi rahmani rahim فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون